ci wàllum ngóor a jëmee ci wàllum góor ak jigéen euh, loolu lañ fas yéene waxtaanee lépp lu ci tukki ak lépp lu ko wër maanaam li ciy jafe-jafe ak li nga xamante ne moo ci nekk ci biir ak ci biti euh, balaa ñoo yegg foofu comme sa gëstu da nga koy amal ci jëm ci wàllum alxuraan ak jëm ci wàllum euh, science d'abord sexualité ak science. Mhm. waa kay jërëjëf laaj bu ñu neex a ngoog su ko defee nag balaa loolu da nga nuy may tuuti ñu daal di néewtalu xam nga luy néewtalu. <laughs> waaw néewtalu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ndax euh, yàlla dafa bari lu mu nëbb li mu nëbb dafa bari lool te maanaam li mu feeñal li ñu ci gis li mu feeñal lu néew la te ñun lan ca gis daa xam nga koo xam ni la mu nëbb daa bari lool te li mu feeñal li nga ci gis dafa dafa tuuti sooy wax ci moom euh, il faut nga néewtalu ba pare euh, kon nag comme ni mu ko misaalee rek ci alquran mu ngi mel ni xam-xam daal mm, maanaam mu ngi mel ni garabi àdduna bi yépp ak ni ñu baree te yaatu yow nga toog ci benn garab kese benn ci garab yi àdduna bi nga toog ci di feexlu waaw am am ay luy ruus di wadd sa kanam loolu loolu ngay nettali waaw kon loolu tuuti na par rapport ak li am yépp kon maanaam euh, ñun dañoo nekk ci domaine gëstu te gëstu googu dafa lay yóbbe ñaar waaw ñaar yi bi ci njëkk mooy saa sooy gëstu di nga di nga xam lu bees waaw saa soo xamee lu bees rek di nga ah, ndekki kon lii amoon na te xaw ma ko gis nga ko léegi nag su ko defee yow saa su ne da ngay dem ba da nga naan sax euh, ndax sax sañ nañoo wax ndax li nu xamul moo ëpp li ñu xam li mu moo ëpp li ñu xam te li koy wane mooy bis bu ne nga xam lu bees. Mm-hmm. waaye li ko li ko li ci ëpp solo rek mooy gëstu. li ci ëpp solo mooy. gëstu te ci ngeen nekk di ci di ci gëstu. moom la ñu nekk tey nga defoon ñu ay gëstu jëmale ko ci wàllu. ci wàllu sexologie ma delluwaat la sama question. Euh, voilà sexualité ak. waa ci kàttanu borom bi. Mm-hmm. ak alxuraan ak Coran. waaw bu ko defee ala kulli xaal euh, comme li ma la wax rek euh, balaa loolu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla ak ay malaakam yëpp ñu ngi def kuréel du julli ci moom kon wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbi ajmain sëñ Moustapha ñun nag suñuy xalaat ñu ngi koy nase ci alquran yamuñu ci dañoo jël ko jël ko nag def ko muy suñu gàggantiku alquran la ñuy gàggantikoo waaw kon suñu mboole mi njuumte rek delloo nañ ko ci sunu doyadi waaye nag di dëgëral ni lépp loo xam ne njariñ la ci yàlla rek la mën a bawoo waaw yal na ko yàlla yombal mu jaar ci sunu làmmiñ mu mën lu ñëpp mën koo jariñoo su ko defee comme Séné sunu gaal 24 la ñuy wax comme maanaam waaw Sénégal sunu gaal daal. gaal gaal gu ñëpp xaj gaal gu ñëpp xaj kon nan joow daal mu jëm kanam. waaw si kattanu borom bi kon euh, laaj bi am na solo. Mm-hmm. Euh, ñu ngi wax tey ci impuissance sexuelle maanaam maanaam wàllu sexologie ak Coran maanaam domaine la boo xamante ni tey jii dafa yitteel sunu borom subxanahu wa taala ndax li tax. mooy maanaam plan wu yàlla la ça fait partie des plans de Dieu pour maintenir une espèce mu mm. mu am continuité espèce bu mu mën a doon rek yàlla daf ñoo wax ni wa xalaqnaakum azwaaja ma bind leen ngeen di ay góor ak ay jigéen waaye yamu ca binduñu rek ñuy xoolante góor ak jigéen déedéet mu teg ci wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja mm-hmm. li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa ma inna fi zalika la ayatin li qawmi yatafakkurun binduma leen rek ngeen di xoolante waaye dama leen a bind defal leen ay soxna gannaaw loolu ngeen ngeen di noppalu ci ñoom ba pare def benn cofeel benn sensation benn yëg-yëg mm-hmm. ak mbëggeel boo xam ne da ngeen leen yittewoo mm-hmm. ba pare nag mu ni loolu na ngeen xalaat jëme ci loolu inna fi zalika la ayatin li korona yatafakkurun ñu lu dul jëfe aaya boobu ngir mën a indi jàngat yi tey mm-hmm. bu ko defee nag euh, historiquement parlant wàllu sexe dafa teel a dugg ci histoire doomu adama ndax euh, man man dama bind benn article maa ngi ko tuddee de la trompe à tombe maanaam. maanaam ci ci trompe yi jigéen di bàyyi ko. ba ci bàmmeel ba ca bàmmeel. Mm-hmm. waaw amul benn téere boo xam ne topp na doomu aadama ci bi muy nekk ndox. te loolu yaa ko bind toppee ko foofu. toppee ko foofu ba fële. fu mu jógee ko. ba fële toq ma niiw bi. ba ca biir ba ca biir bàmmeel ba te loolu sunu borom moo ko indi mm. moom moo ni min ayi shay'in xalaq min nutfatin xalaq fa qaddara summa sabila yassara daa du wax ni suma amaatoo fa aqbara maanaam topp doomu aadama mm. dafa yàlla moo yitteewoo doomu aadama topp ay mbiram ca biir biiru yaayam ba muy nekk ci trompe yi de la trompe à mm-hmm. kon loolu boobu article bu ma bind la bu ko defee nag li tax mën la teer na dugg ci histoire doomu aadama mm-hmm. mooy xoolal tey ba maam aadama nekkee ci àjjana bi mu ñamee garab gi réaction bi njëkk a am garab gi yàlla tere woon bi mu ko bi mu ko ñamee réaction bi njëkk a am yàlla dani badat lahuma saw aatuhuma bi mu laalee garab gi rek sër yi dafa naaw mook awa kenn ku ne gis sa sexe moroom te noonu la ko waxee badat lahuma saw aatuhuma li taxoon ñuy jël ay xob di ko taf seen kaw kersa googu la nu amoon kon yàlla mu ngi def allusion ci sexe foofu wan importance bi mu am moo tax ñu koy nëbb. très bien te loolu mooy mooy moom mooy assurer suñu continuité ci doomu at suñu suñu suñu suñu suñu ñëw ci àdduna. solo si mu am voilà mission bi yàlla yebal ci suuf ci aadama la jaarale mbooleem seen tey ñaar rek la fi indi woon. Mhm. kon loolu ñu jël ko tey li ma ci mit mooy mu ne ci réseau yi ah, ñu koy fowe wàllu sexe di indi ñoo xam ne xamuñu dara ñu ciy wax. te mu nekk loo xam ne thème bu yéemee yéeme la ci mhm. biir alxuraan. lu lu complexe tamit lu complexe. Mhm. bari ay mbir te tamit partout yaa ngi dégg ñuy wax infaible infaible sexuel ñëw leen lii lii ki baax mu bari ñu koy faj lool ku jóg wax ko ah, ndax ku jóg ne damay faj voilà léegi nag bu ñu duggee ci waxtaan wi tey xam naa li jàngoro ju bëri moo tax ku jóg rek ne daf koy faj ku koy faj mm. te nag jàngoro ji dafa multidimensionnel dafa bu ñu ci duggee rek nga xam ni lu mm. dafa compliqué. dafa dafa dafa compliqué ndax tey indi naa cause yi. Mm. indi solution yi. voilà loolu du am solo la te xam naa dinañ ko soxla ci biir waxtaan bi. Mm-hmm. Euh, fi ñu koy dooree mooy euh, mm-hmm. professeur mm-hmm. Euh, taxawal. mooy mooy mooy lan. Euh, érection érection érection bu érection bu dëgër. dëgg la dëgg la waaw kay. élection érection xam naa. <laughs> waaw érection waaw xaw ma koy waxee waa wolof wax naa ko léegi dina xaw a dina xaw a compliqué nag. nan ko nan ko leeral rek waaw nan ko leeral waaw dañ dañ ci jublu jàngale. jàngale waaw dañ ci jublu jàngale c'est mm-hmm. même si c'est un peu compliqué. oui. Mm-hmm. mais loolu mooy lan. waaw érection mooy. tax ak nu muy nu muy sosoo. ak nu muy sosoo très bien. léegi nag euh, sañ Moustapha xam nga li ma nettali sànq épisode boobu. yàlla dafa indi benn équilibre maanaam ci néegu sëy naka la ñuy def ba kenn ku ne jot ci sa àq ngay góor ngay jigéen kenn ku ne mu nekk lu équilibré am ci li nga bëgg am ci satisfaction yaa ngi dégg ku mel ni Nathalie Bernard ba muy bind ci livre am ba euh, le jugement dernier dem na ci ba ci xas jigéen ci épisode bi ma la wax nii ni celle qui fait fii l'erreur celle qui fii celle qui a fait euh, celle qui a fii celle qui a fait fi l'interdiction mm-hmm. par sa gourmandise insatiable maanaam ki nga xam ni. sàmmontewul ak tere bi ñu doon tere. voilà sam ndax foqale gi mu foqale. foqale mu foqale mm-hmm. maanaam kenn ku ne yaa ngi koy jiiñ sa morom. Mm-hmm. mais suñu borom dafa ñu bëgg indil plan boo xam ni maanaam bu ñu ci jaaree góor ak jigéen kenn ku ne di nga am li nga bëgg. te maanaam euh, maanaam boddi bi du ci am. loolu nag bu ma ñëwee ci biir waxtaan wi lay gën a leer mm-hmm. ndax yaa ngi ma laaj lan mooy érection mm-hmm. xam nga faw ñu leeral ko nit ñi mooy mooy taxawal mm-hmm. te bu ñu nee taxawal ñépp seen xel dem ci góor hmm? seen xel dem ci góor te pourtant jigéen day taxawal. Ah bon loolu doy <laughs> waaw jigéen day taxawal. Mm. te lii ci biir alquran la boo demee. yàlla dañuy yaxruju min bayni sulbi wa bi pour pour rapport sexuel bi jaar yoon il faut que deux yi am maanaam ku góor ki dafa war a taxawal ndax kanamu jigéen yàlla bàyyiwu ko noonu da koo tëj ku ne xam na ñi jàng xam na li li may bëgg a wax am na lu ñuy wax phase folliculaire am na lu ñuy wax phase lutéale am na phase euh, euh, sécrétoire léegi nag am cycle de la glaire servical loolu am na ci diggante boobu leer seere leer filante maanaam dafay am jamono boo xam ne kanamu ku jigéen ki day gën a tëju day gën a tëju léegi nag maanaam pour mbir mi jaar yoon rapport bi jaar yoon li nga xam ne moom la ku góor ki yor mën a dugg il faut mu am érection bu doy ku jigéen ki tamit wax naa la sànq ni dafa dafay taxawal nan lay taxawalee mooy dafa am lu nekk ci biir awra bi loolu loolu la ñuy wax clitoris loolu dafay taxaw def nii bu taxawee tamit commencé yàbbi ci biir awra ku jigéen gi dafa yàbbi benn ndox ndox moomu moo koy lubrifier li ma la wax ni ay système la yu yàlla teg mhm. ba pare leeral ko ci alxuraan malgré gars yi boo koy wax ñu ñoom ñu nekk ci jàpp ni yii ay caaxaan la comme ni nga ko gisee ci réseau yi rek ñu di ko foowe te ay mbir la moo xam ni yàlla dañuy wamin ayaat yi wax ni la allahum bi la allakum yatafakkarun da ngeen ci da ngeen cee war a xalaat. gëstu leen ci. gëstu leen ci xalaat leen ci yaa ngi dégg. bu ko defee nag bu defee loolu moom la sunu borom di wax ni summa sabila yassara sëy mënul am lu dul ba yàlla da ko yombal nan la koy yombalee mooy bi mu waxee ni yaxruju min bayni sulbi wa tarai bi soo ñëwee ci ndigg li li wax cook mooy yax bi gën a fuute féete ci suuf yax boobu ci kawam tuuti am na bu am na muscle bu fa nekk bu ñuy wax pubococcygène boobu moom mooy jañu pacal ndox mi mu génn dem su ko defee nag Euh, ndox mi mën a àgg fa mu jëm taxaw bi nga xamante ni ku góor ki da koy taxawal itam mu dëgër mën a àgg fi nga xamante ni foofu lay àgg. ok muy muy lu am solo euh, professeur. Mm. Mm-hmm. mais mais mais taxaw boobu tamit parfois dañ ci gis ay jafe-jafe. parce que mm. taxaw bi léegi léeg taxaw bi du war taxaw na mu war a taxawee. Mm-hmm. day day gàll gàllu góose. dëgg la moo tax ma indi juróomi jafe-jafe yi am ci wàllu sëy. Mm-hmm. tey dinaa ko indi ndax nee naa la dara du génn ci doomu aadama fekk yàlla yombalu est-ce que xam nga ni saw sax pour mu génn yàlla naa ko yombal su ma sabire yasara cest à nit ki bu mbuusum saw mi feesee day taxawal loolu seetlu ko ci xale yi bu bu maanaam vessie bu vessie bi bu bu feesee nit ki day taxawal parce que li tax muy taxawal mooy pour ndox mi mën a génn normal léegi nag su ko defee lii ma la wax nii am na beneen système bu ñuy wax TPN mooy loo xamante ni mooy tumescence pénienne nocturne maanaam taxawal gi nga xamante ni moom la ko góor ki di taxawal ci guddi gi même bu dee day day nelaw yëgu ko dina ko def quatre ba cinq fois ci ay période yoo xam ne ay quinze minutes lay diire hmm. di wàccaat diggante taxawal bu ne ak moroomam loolu la ñuy wax phase réfractoire comprendre nga hmm. kon maanaam loolu ba léegi scientifique yi mënuñu ko expliquer. mënuñoo xam lan mënuñoo xam lu ko sooxe waaye boo demee ci alxuraan dangay ngay fekk réponse yi parce que lenn lu ne ak ci li ko yàlla tàggat hmm. tey ji bët bi yàlla da ko tàggat ci xool loxo bi yàlla da ko tàggat ci rolam mais awra itam yàlla da koy tàggat ci li ko tax a jóg moo tax mu ni wa maa xalaqa zakara wal unsa yaa ngi dégg kon nag maanaam même boo ko yëgul day taxaw ak a wàcc wala boo xëyee suba teel da ngay gis loolu ba ci bébé bi day def loolu donte amagul yëg-yëg ci àdduna xamagul sax luy loolu mais sunu borom mu ngi koy tàggat ca la tax awra wa jóg. ok ma bàyyi la juróom yi nga indaale. voilà waa kay juróom yi <laughs> sëñ euh, Moussa bi ci njëkk mooy dysfonctionnement érectile. mooy taxawal boo xamante ni da nga am jafe-jafe taxawal ko mooy ku góor ki am jafe-jafey awraam taxaw benn bu ne dama koy jox nag bu ñu dugg ci biir waxtaan wi ñu gën koo leeral mu am nag éjaculation précoce mooy ñi nga xam ni loolu problème de contrôle la. maanaam bu ñu commencé sëy rek dañuy. àgg nañu dañuy dugg rek dañuy door rek jot seen bopp. daal di àgg. Mhm. kooku mooy maanaam contrôle la dinaa wax li koy waral. Mhm. su ko defee mu am euh, éjaculation asthénique éjaculation asthénique mooy koo xam ne buy éjaculer bu ndox mi génn day dagg day daggatoo naan hmm. car car car ëllëg mu ni car dem mais danaan car car car di daggatoo kooku hmm. mooy éjaculation asthénique hmm. am na éjaculation retardée loolu jafe-jafe la wala jafe-jafe feebar la éjaculation précoce ni mu amee noonu la éjaculation asthénique amee am éjaculation retardée éjaculation retardée li koy waral mooy ñi nga xam ne dañuy masturbé wu. Hmm, dañuy dem ba am jafe jot seen di fooye seen bopp. Hmm, hmm. noonu ñu koy def noonu xam nga boo demee ci muqaddimatul isi waaw borom muqaddimatul isi wax wax na ba muy wax naan fi salte wal natri même yow mi nga xam ne yow yaay saw ba pare di raxasu comme noonu nga koy boxañee noonu ak di ko wicc wicc boobu sax teeyal bu baax. na ndànk raxas bit bu ko boxam na nga kii rek mu wàcc. fi salte wal natri li mu ngi ci muqaddimatul isi te ñu bari ci réew mi jàng nañ ko ci wàllu fiq te yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne yow miy fooyee sa bopp day dem ba da ngay am éjaculation retardée mu am éjaculation rétrograde am na ñoo xam ne danañ daanu waaye dara du génn ndox maa ngi ci biir ci biir vessie ba la dugg fa mbusum saw ma loolu loolu moom jàngoro boobu loolu yëpp dafa am léegi nag dama bëgg yooyu yëpp ñu ñëw ci lu koy waral ak lan mooy solution yi mm-hmm. kon maanaam bul dégg ni kii dafa néew kattan rek nga ne sëñ bi ñëw leen garab gi mooy faj lépp. d'abord dañ ci demee ndànk-ndànk. waaw lan mooy waral euh, bu njëkk bi nga xam ni dañ koy gis. Hmm. maanaam mooy mooy mooy faiblesse bi maanaam taxawaay bi du du ko taxa dëgër noonu wala du dëgër. dëgg la xam nga balaa. dañuy am jafe sax pour mu taxaw. waaw balaa loolu. Hmm. Euh, di nga ma may tuuti ma am dafa am travaux yu ñu nekkoon ci weer yi gannaaw. Hmm. ma bë ma bëgg leeral tuuti bëgg jàppale xëj na ñi nga xamante ni ci sunu euh, xam-xam bu néew bëgg cee jàppalante ak ñi nga xam ne tey jii dañuy yëngu ci domaine faj bi. Mm-hmm. xam nga li ma wax rek il faut ñuy moderniser di gën di gën a yëkkati niveau bi. Mm-hmm. dama lay jox ay misaal pour wan la ne sunu borom subhaanahu wa taala yor lépp balaa maa ñëwaat ci wàll woowu. Mm-hmm. tey jii doomu adama ay yëg-yëg la rek. Hmm? ay yëg-yëg la ak ay mécanisme yoo xam ne yàlla moo teg mécanisme yooyu il faut nga comprendre yooyu. doog a dugg ci di ngay wax ni kii dafa néew kàttan lii ko waral wala lii laa koy jox mu wér. Mm-hmm. par exemple ñu dugg ci système hormonal ndax sëy bi loolu da ciy participer. hormones yi. waaw hormones yi. Mm-hmm. <laughs> waaw bu ko defee yow pour jox la misaal xam nga sunu borom dani wa jaal naa nawmakum subaata am na benn hormone bu ñuy wax mélatonine. Mm-hmm. loolu la doomu aadama di libeere doog a mën a gëmmentu mën a tëddi nelaw. moo tax yàlla ne wa jaal naa noo ma kum suwaata dégg mu naan dangay dégg yow ci sa ci sa euh, gàttu xam-xam di nga dégg yàlla ne maa def seeni nelaw mu di seenu noflaay foofu rek lay yem léegi nag na mu ko defee nag yow yaa koy gëstu ji mooy bopp bi nan lay def ba libéré loolu ba yow nga gëmmint ba mënatoo xool dem tëddi mu ñëwaat ni li yesku na ilayha ni ma ko waxee ci aaya ba sànq nit ki bu séyee ba jot boppam dafa am leneen lu muy libéré loolu la ñuy wax prolactine léegi nag boo séyee ba pare da ngay gis sensation de plénitude da ngay dangay si waat même boo sonnoon da ngay gis yaram bi di nga yëgaat leneen ci sa yaram mm-hmm. mu mel ni danga nga beesaat mm-hmm. yëg benn benn maanaam benn nekkaat daal loolu la yàlla ni yës na ilayha loolu système hormonal la mm-hmm. te yii dama ci limal lu baree bari hmm? te yenn saa nga gis jigéen joo xam ne day am sikkim gars yi di ci wax ay aada ak yooyu te loolu yëpp ay hormone la maanaam boo balee testostérone ci jigéen testostérone hormone góor bi moo bëri ci très bien mm. sikkim bi génn loolu yëpp ay mbir la léegi nag man moom baat bu diis très bien wala mu mel ni góor mm-hmm. xam nga léegi nag su ko defee hormone yooyu pour avoir nga am départ bu baax ci wàllu faj moo tax ñu liggéeyaat si ñun mm, di ci fo dañ ci hormone yi waa hormone yi dañ cee liggéey ba mm. pare man dama ko def benn tableau bind ko na ko gars yi ñëw jël si dama bindaat 63 hormones yi nga xam ne moo gën a ràññeeku dama ko bind na ko fajkat yëpp mokkal xam li muy jariñ ci doomu aadama ba lu yëngu ñu xam ne lii moo ko yëngal ci doomu aadama commencé ko ci euh, vasopressine mhm. aldostérone adrénaline adiponectine acétylcholine acide abscisique oxine acide gamma aminobutyrique branchinostéronique corticolibérine corticotrophine calcitonine cortisol cortisone cytokinine cholécystokinine dopamine déshydrohypoandrostérone érythropoïétine azétazine éthylène facteur de libération de prolactine facteur atrial natriurétique gastrine ghréline gibéreline glucagon gonadolibérine gonadotrophine chorionique yooyu yëpp ay hormone la. Mhm, mhm, mhm. am na hormone lutéinisante hormone thiotrope. bu nekk bu nekk bu nekk ak ak lu nekk boo nee ma lii lii la ma ne la lii lii la. macha allah macha allah léegi nag loolu. loolu xam-xam la ak gëstu. léegi nga nga ma sama léegi nag loolu li tax ma koy dugal. li tax ma koy dugal. mooy bëgg bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi. Hmm? ma wax la érection dëgg-dëgg lan moo koy waral. da nga may laaj laa bëgg nga ñëw nga ñëw ceex man la waaw parce que boo nee da ngay faj néew kattan mhm. war nga xam lan mooy érection. maanaam mécanisme bi lan mooy def nit ki di taxawal. góor ki di taxawal. ba pare doo ci yem da ngay xam tumescence xam détumescence. Mhm. maanaam lan mooy taxawal awra bi lan moo koy dindi. lan moo koy tax lan mooy dindi mu wàcc. Mhm. bu ko defee bu ko bu ki nit ki amee problème di nga xam li tax awra bi wàcc. bu nit ki wàcc nga xam lan nga xam loo ko waral léegi nag ma ñëw ci loolu xam nga xam nga érection bi dama ko tënk ci juróomi mbir waaw érection boobu bit tafakkur ci lay commencé boo demee ci laxdari <laughs> dafa wax loolu lépp loo gis ci stimulation nit mën na toog di xalaat ba dara di génn ci moom mm-hmm. ba dara génn ci moom kon lépp ci stimulation lay commencé moo tax ma ne SNO 3G boobu mooy bu njëkk bi mooy maanaam stimulation lépp fii lay déparé li ngay gis ak li ngay xalaat mooy tax mu jóg nan lay jógee mooy boo xalaatee takk rek xamal ni ci biir awra bi am na fu ñuy wax corps caverne foofu day libérer li ñuy wax monoxyde d'azote mm-hmm. monoxyde d'azote loolu bu ko libéré loolu dafay dem directement activer li ñuy wax ganylate cyclase mm-hmm. loolu lay dem attaque bu ko activer loolu nag dafay dem transformer li ñuy wax ganosine triphosphate def ko ganosine monophosphate ganosine monophosphate boobu moom mooy dem fees ci tissu yi tissu yu liis yi ah mm-hmm. daal di nag comprimer veine yi ci awra bi veine mooy liy delloo deret ji ndax deret cër bu ne xol bi da koy jox di jëlaat ci moom da koy jox di jëlaat ci moom mm-hmm. léegi nag su su su su fekkente ni dem na ba nga xam ni li ma la wax noonu mooy mooy ganosin monophosphate bi su baree ci awra bi su libéré wu ba bari foofu léegi nag dafay daal di day am relaxation ci yenn muscle yi nekk foofu muscle lisse léegi nag ñoom ñooy naj liy delloo deret yi hmm. bu ko defee nag deret dafa ñëw yëpp dafay taxaw léegi nag bu ko defee awra bi daal di gonfler mu ngi mel ni benn mbuusu ndox rek bu dee mbuus mbuus kese la boo ko defee ni day yëngu mais boo ci duyee ndox mu taxaw hmm. xam nga mu ngi mel ni xottu saako rek nga dugg ci saako day taxaw benn mécanisme bu gudd la très bien benn mécanisme bu gudd la hmm. léegi nag bu ko defee tamit dindi dindi bi tamit dindi bi tamit la même chose dafa am ay ay neurones yu koy def yoo xam ne ñooy dindi loolu am na benn enzyme bu koy def moom la ñuy wax pde cinq moom mooy dindi. Mm-hmm. vas y dafa am dafa am enzyme bu ñuy wax euh, pde cinq mm-hmm. enzyme boobu ci biir awla bi la ne. loolu mooy dindiwaat taxawaay bi mu taxaw kon nga xam mécanisme boo xam li koy taxawal xam liy dindi taxawal bi. Mm-hmm. bu ko bu ko defee bu boo maîtriser loolu dana gën a yomb pour nga jàmbal jàppale nit ki su ñëwee. boo boo ko consulter. Mhm. voilà léegi nag su ko defee euh, ginnaaw loolu wax nañ sànq éjaculation précoce. Mhm. Hmm? mooy ki nga xam ni. kon kon érection bi su ma tënkee li nga wax mooy. Mhm. da ngay xam. lan mooy waral. waaw lan jóg waaw lan mooy waral mooy waral muy wàcc muy muy wàcc. waaw léegi jàngoro yi si jàngoro si aju nu muy nu muy demee noonu lan mooy waral muy jóg. mi dan mooy waral du jóg wala lan mooy waral du jóg léegi nag loolu tax ma indi cause yi dama ko séddale ci ñeent voilà cause yi mën nañu wax am na cause yoo xam ne cause pathologique la moo tax ma indi ñaar fukki feebar tey yooyu mm-hmm. yuy jur yuy jural nit ki ak ñàkk mën a jógal mm-hmm. hmm? daal di indi cause yoo xamante ni ay cause cause yoo xam ne yaa koy provoqué cause yoo xam ni yow yaa ko def du feebar dara yow yaa yow yaa yow yaa am yenn habitude yi ba loolu jural la ñàkk mën a taxawal am tamit yeneen cause yoo xam ne cause yu naturelle la hmm? léegi nag boo bëgg rek mën nañ cee commencé waaw waaw waaw kon nag ñu commencé ci ci ci ci ci cause yi nga xam ni ay feebar la yoo xam ne day indi ak tële ci nit ki hmm. kon boo déggee kenn ku génne benn garab rek teg ni lii day faj ci néew kattan d'accord fortifiant am na parce que ñun dañu koy liggéey am na garab gu ñuy wax Senizex ñoo ko liggéey ñun suñu laboratoire hmm. day fortifier nit ki mais day fekk nga ñàkk am feebar cest à boo ko naanee rek mu mu may la kattan. mën na la dolli afro aphrodisiaque la daal. waaw mu aphrodisiaque euh, du ma nangu baat boobu xam nga waa lu gudd la <laughs> <laughs> waaw gudd la. waaw léegi nag. Uh-huh. bu ko defee euh, causes yi nga xam ne tey jii feebar moo koy waral. Uh-huh. bi ma ci njëkkee mooy VIH Sida. ok bu ko nit ki amee doomu jàngaro jooju daf koy jural ak néew kattan. néew kattan. Uh-huh. ak taxawalam du demee noonu. ñaareel bi am na am na feebar bu ñuy wax prostate feebaru mag ñi la. Mhm. cinquante ans jëm kaw léegi sax maa ngis muy dal ay xale yu ndaw ah. nee day dugg ba quarante ans quarante cinq. Ah, léegi kay fi mu toll nii dafa yéeme. Mhm. Hmm? Ah, prostate waaw ah, léegi nag loolu dafay indi nit ki ak tële. Mhm. am na benn am na feebar bu ñuy wax jabet moo xam boo ci yor type type un beeg bi yëpp dafay indi ak néew kàttan waaw am na am na tension artérielle. maanaam bu hypertension bi ak hypotension bi yëpp. day baaxul day tax nit ki <laughs> xool kon maanaam nit ki su la nee su ne suñ nee dafa néew kàttan. tension boo ko tuddee dem ci lekkin wi. lekkin wi lekkin wi dundin wi. Mhm. Hmm? dundin wi. Mhm. waaw léegi nag soo jógee foofu nga ñëw ci wàllu neer neer sciatique ku ko am itam dina néew looy sëy. Mhm. waaw parce que sa moom dafa doy waar. dafay dafay dafay tax nit ki wàññeeku lool ci wàllu néegi sëyam mooy mooy mm-hmm. nerf sciatique mm-hmm. Mm-hmm. ñëw am na tamit lu ñuy wax neer sacré fii lay nekk ci digg ci digg gannaaw gi fii s ak s xam nga loolu boo ci amee jafe-jafe mu kepp wala nga am ci anomalie bu mu mën a doon day wàññi sa kattan hmm? waaw am na tamit hernie discale mooy yax yi nekk ci digg ginnaaw gi ne mu tegaloo benn bu duggee wala mu génn daal di carmoyel bi da ngay daal di am problème mu sëy. Hmm. waaw da ngay am problème mu jafe-jafe sëy gis nga ak AVC. AVC waaw. kon AVC yemul dong ci ci ci déformé loxo déedéet AVC AVC ci loolu la gën a gaaw. Hmm. yàq yàq yàq ngóore nit ki ba du mu dootul mën a jóg normal waaw dalay gaare Mm. waaw gis nga ko. mais mais ki gaare ci AVC mën na mën na jotaat. waaw dañ koy stimuler stimulation la rek. Mm-hmm. nit ci yaram bi lu bari moo koy defal boppam danga koy yee rek dimbali ko jox ko li mu soxla lu bari moo koy defalaatal boppam. Mm-hmm. léegi nag am na stress profonde stress bu yéeme boo xam ne daf la jàpp. Hmm? boobu boobu. day stressé ba. waaw sax lekk. voilà comme problème mu problème mu ñi nga xam ne dañuy yéeg tribunal di yéeg ko wàcc. waaw waaw nekk ci jafe-jafe ay pression familiale pression conjugale. Mm-hmm, mm-hmm. Hmm? Hmm? nekk jafe-jafe yu métti yooyu day tax. yow ci sa bopp wala parfois économique ah. nga bëgg dara ah mënoo ko régler te mu nekk lu urgent. yooyu yëpp dafay joué ci ah maanaam ngóore nit ki. nga jóge ci loolu ñëw ci dépression. waaw dépression am na sax ay études yoo xam ne yu récente la yoo xam ne dafa jógee euh, Taïwan di wax ni plus de deux mille cinq cent vingt sept ñoo xam ne dañu leen a consulter ñu am dysfonctionnement érectile maanaam mënuñoo taxawal ñu dañoo gis ni ñooñu ñu ngi doon commencé am dépression. Hmm. dépression moom nga commencé ko wala mu dal la ba pare moom dafay raar nga dellu siwaat nekk koo xam ni ku am kattan nga hmm. waaw dégg hmm. ba tey am na euh, neuropathie euh, mooy mooy lu mel ne ay Alzheimer Parkinson yooyu yëpp dafay wàcce góor. jàngoroy bopp yi bopp yi hmm. day wàcce góor. waaw ak psychose yi. waaw hmm. xam nga problème jafe-jafe xel. Hmm. ñàkk nelaw. yooyu yëpp dafay indil nit ki ak tële. waaw waaye itam wàllu wàllu wàllu seytaane wàllu seytaane. parce que nit it dana la ñëw ci yow wax la loo xam ne doo ko mën a comprendre ak loo gëstu gëstu koo xam ne dana taxawal waaye bu tiimee ndaw si rek affaire yi wàccaat xam nga tamit te boo demee bu dee ñaar nga yor boo demee ca kee mu normal loolu loolu baatin lay laaj <laughs> moom dafa jéemee moom daal mu mais foofu yéen tamit da ngeen waa nin ci intervenir mooy xëj na jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mais mais mais foofu tamit dafa dugal leneen loo xam ne boole si jàngoro mooy takk xalaatamit waaw takk xalaat. am nañ ay am nañ ay patients yu yu. yoo xam ne loolu science ko wane ah. non science mënu ko wane normal ñu may ko soxna. waaw xam ne normal na. ñëpp xam ne normal na mënul jël soxnaam. jël soxna si te bu demee ba tim ko. Mhm. loolu yëpp li ma la wax nii. man damay am ay patients yooyu yuy wax loolu. da ngay ñëw ba tim ndaw si mu wàccaat. Mhm. te ni muy wàccee sax ma lay wan ne du yoon parce que bu dee wàcc bi bu normal bi ma la wax sànq détumescence dafa am ndànk ndànk lay def mais loo xam ne day jikki-jikki rek def nii mhm. bu boobaa da ngay xam ni lii yaa yaa yaa yaa autre mhm. mbir la moo xam ni waaw am na lu ne ci gannaaw yooyu nag jàkkaarloog yàlla su boobaa nag ustaas bi mooy dugg su boobaa yëre ustaas bi ngay sol ah. <laughs> waaw su boobaa yëre ustaas bi ngay sol. xam nga sol kaala bi daal di toog. <laughs> lu nu mënta gis. Hmm. sunu borom subhaanahu wa taala lan koy lan koy bàyyal boobaa danay jàkkaarloog yàlla ñaan nit dina ñëw ci yow. Hmm. wax la loo xam ne daf lay leer ni doo jël genn garab di ko jox. Hmm. parce que xamuloo lii muy wax ni lan la. Hmm. waaw parce que par exemple. waaw ñaan rek. adduwaaw. adduwaaw si laaxul muuminin ñaan rek. Hmm. waaw ci yàlla. Hmm. dégg nga léegi bu ñu jógee ci wàllu woowu. am na hyperlipidémie. mooy koo xam ne da nga bari graisse. soo baree graisse day wàññi sa kattan. Hmm? bari greffe mooy mooy ñi am biir yu rëy biir yu am ay ndodd fii ay ndodd yoo xam ne tey jii waaw ah nga xam ne sa IMC normalul indi indice de masse corporelle waaw normal mooy surpoids bi voilà surpoids bi xam nga waaw boobu it day wàññi day wàññi kàttanu ku góor ki doo man dara daal xam nga waaw gis nga ko am na tamit euh, syndrome d'apnée syndrome ne mhm. waaw syndrome d'apnée mooy ñi nga xam ne dañuy xarañ xaran yu metti yooyu hmm? kooku feebar spécial la waaw beneen jàngoro la parce que seen fii mooy tëju bu tëjee nag bu tëjoo cerveau bi dootul am xam nga bopp mooy sëy mhm. cerveau bi du am oxygène ni mu war a amee oxygène waaw moo tax euh, feebar la boo xam ne dañ koy traité à part la boobu it day wàññi kàttan am na itam artériosclérose feebaru sidit la ko waaw boobu it dafay dafay daf lay jural néew kàttan xam nga kon sëy yi ci aja moo moo impuissance sexuelle li ci aja dafa bari. dégg naa cigarette mi daf ciy bokk. waaw yooyu mooy cause yi nga xam ne nit a ko provoqué. Hmm. maa ngi ciy ñëw ci kanam xam nga maa ngi ci feebar yi ba ba léegi. waaw si <laughs> impuissance dafa yaatu de sëñ bi dafa yéeme. Hmm. waaw léegi nag bu ko defee am na tamit hémorroïde. Hmm. hémorroïde da koy waral waaw parce que hémorroïde dina wàññi góor gi lool waaye nag ci jigéen la rawee ndax ci jigéen day dem ba dootul yittewoo boroom këram. Hmm, bu demee waaw bu demee ba phase finale. dafay dafay dem ba boo séeg moom ba pare day mitti ci moom parce que diggante ñaari bunt yooyu dañoo jegeyoo waaw bu ko defee danga nga koy gaañ. Hmm? waaw loolu am naa patient yu bari yoo xam ni dañ ma koy jàmbat. Hmm. waaw mais nag compliqué wul. bu ko defee am na tamit euh, handicap handicap boo xam ne daf la dab comme par exemple ku dem ba mu yàgg mu gumba gumba gi dab ko. xam nga sëy du cër boobu kese mais lépp ci la bokk. waaw ki dafa judduwaale gumba kooku mun nañ kooku moom tàggateer moom ay automatisme yoo xam ne waaw fa jaaree peut xam nga faj moom day day mm. avancé rek mm. faj taxawul benn place mais daanaka handicap moom bu la dalee mm. euh, bu la dabee day fay day wàññi sa kattan surtout mu dab la nag moo gën a moo gën a doy waar léegi nag bu ma jógee ci cause yooyu limal naa la feebar yu kii rek jeexul mais mm-hmm. ñu ñëw ci cause yi nga xam ne yow yaa koy provoqué mm-hmm. hmm? léegi balaa loolu sëñ Moustapha dama lay indil ñaari mbir xam nga yàlla dani moytu leen di di di wuuteeg yenant bi sallallahu alayhi wa ndax seenu wuuteeg moom ñaari mbir laa ci teg te benn ba sax yërmande la dani fal yaxdani allazina yuxaalifuuna an amri an tusibum fitnatun aw azabun alim bu ngeen wuteeg moom mbaa ngeen jàdd am njàngaleem ñaar yi laay teg benn ba mooy fitna beneen bi mooy mbugal te fitna ji dama leen koo tegal ngir nga gaaw wàññiku balaa ngaa yegg ci deuxième bi mooy mbugal mi dégg nga ko kon maanaam yi ma gis mooy signes yi koy provoqué yëpp dama gis yenant bi tere ko yàlla tere ko kon fitna ji jim lay jural mooy nga arrière balaa ngaa yegg ci mbugal ma ëllëg. Mm-hmm. gis nga kon mooy tabaa. tabaa tabaa baaxul cigarette. day wàññi ngóor. bu baax ndax day déposer ay graisse ci sa ci sa ci sa sidit yi. Mm. te maanaam képp ku xam am problème mu vascularisation doo mën a sëy normal. parce que sidit moom la sidit mooy yëkkati ko sëyukaay bi di soxla. moom dafa am lu ñuy wax corps caverneux ñaar la ci kaw ci kaw awra bi ci suuf mooy corps spongieux. Mhm. ci ñaari yooyu deret donc moom mooy moom mooy yëkkati awra bi leneen yëkkatiwu deret jee ciy sadd rek moo koy sadd. léegi nag deret jooju su fekkente ne da nga koo booleeg loo xam ne tookejal la joo xam ne day def teg ay graisse foofu wala muy déposer ay goudron yu kenn xamul. Mhm. mais du mën a def liggéeyam. Mhm. bu ko defee nag yow mi nga xam ne tey ji yow yaay jëfandikoo tabac loolooy sax li ci gën a néew ndax ci cancer la lay yóbbu mm-hmm. wàññi sa kàttan lu yéeme yéeme la kon nag ala bu nu jógee ci loolu ñëw ci l'alcoolisme mm-hmm. day wàññi kàttan sàngara sàngara pourtant am na ñoom dañoo foog ne day may kattan ah foog ne sàngara day may kattan <laughs> sàngara day wàññi kàttan bu baax a baax a baax kattanuk sax kattanuk dox ak lépp da koy wàññi kattanuk yaram day def nga fënax day def nga fënax gis nga ko. Mhm. kon euh, suñu jógee ci loolu ñu ñëw ci infidélité bi. maanaam di fo di caaxaan fii tuut fële tuut fu ne nga dem fa. Mhm. waaw kon yii yëpp gis nga ne yàlla tere na ko te day wàññi kàttan. Mhm. jigéen ju la romb rek ak jamono bi dafa yàqu. waaw jamono bi ma dafa yàqu na gaa yi téyewaat njaboot gi ñu bari ci xale yi mënatuñu dara ndax. te te te na balaa ñoo dugg ci balaa ñoo dugg ci néegu sëy fekk na. Euh, lépp xam nañ ko. daanaka lépp xam nañ ko. Ah, loolu musiba la aussi. waaw léegi nag boo duggee ci néegu sëy moom waaw mu ngoog. Mhm. kon nag ala kulli ñu ñëw nag ci masturbation bi. Mhm. tamit bari na ñi nga xam ne dañuy fooyee seen bopp maanaam ñi seen bopp ba jot seen bopp. ci góor ak jigéen. Mhm. am na sax ay machines yoo xam ne loo xam ne ñaaw na ci kanamu yàlla léegi na ay machines sax yu ñu ci loolu ñaaw na ci kanamu yàlla yàlla bu demee ba tere diggante góor ak góor di sëy diggante jigéen ak jigéen di sëy kon kay moo lay wan ne nit ak machine ba tey Hmm. ñaaw na ci kanamu yàlla yàlla bëggul ñuy enfreindre règle yi hmm. bëggul ñuy enfreindre règle yi moo tax mu teg na góor takk ñaar ba ñett ba ñeent loolu yëpp pour mën nga bañ a enfreindre règle yi hmm. mais jigéen boo toogee bañ ni doo sëy wala doo wujje mu nekk sa choix nga ngay dundee loolu dem di utiliser ay machine ak yu kenn xamul mais tu enfreins la loi de Dieu te te dafa yéeme xam nga loolu lu ko jar ci àdduna léegi nag ñu jàll ci cyclisme mooy ñiy dawal velo lu bare bari xam nga velo toogu ga ndeysaan moom dul ak toogu. Mhm. waa toogu vélo moom dafa yéeme dafa doy waar ku ne xam na fa mu bëgg a jëm buy yàgg rek di bari di yàgg par exemple di ci tukki tukki yu guddi yi. waaw mhm, mhm. di ci toog ba ngoon suba ba ngoon di daw ah, noj naj affaire yi waaye wàcc nekk ci vélo tuuti rek mu amul jafe non non loolu du jafe sport wala sport wàcc 15 minutes wàcc mais yow tey jii di ko dëkkee. di naj affaire yi fottal nekk ci velo bi guddeeg bëccëg mhm. bu yàggee naj boobu nga koy naj dafay dem ba dafay jur euh, néew kattan mhm. am na feebar bu ñuy wax tamit la pyrorhini moo tax même ñiy def ay judo yooyu yëpp nañuy maytu léeg-léeg di di protéger wu bu baax maanaam nga gaañu ñaari yoon ci awra bi di ci gaañu ay répétitif waaw muy répété boo ci gaañu lu bari day dem ba daf lay jural feebar boobu. léeg leen nit dóor la foofu wala yenn entraînement yi. nga di ci bal dal la ci wala yooyu. Mm. waaw même bu feeñagul léegi à lon terme mën na feeñi. waaw fekk bal moo la ci mës a dal wala yu demee noonu daal. Mm-hmm. xam nga waaw loolu mooy laparonie beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne dañoo am néew kàttan ba pare retardé seen consultation ndax ruus wala. Mm. yaa ngi koy dund leer na ne lii normalul sa kattan sa kattan ni mu war a demee demeewu ko waaye am nga. complexe su dem jàkkaarloog nit ki wax ko ko. mu mu jóg jóg ci def ci ay saafara daal. looy gën a toog lu muy gën a yàgg muy gën a kii. Mm-hmm. yaa ngi dégg beneen bi ci des mooy ñiy exagérer ci wàllu plaisir. parce que sëy maanaam maanaam ëppal. ëppal di naan ay doom foo toll ngir di dolli sa kattan. Mm-hmm. du ma lim benn. maanaam yàlla yàlla may la waaye nga xepp foo toll dem jël ci benn. très bien parce que dañuy wax ne rapport yi normal dëgg boo am boo mënee am douze minutes sax baax na. douze minutes douze minutes. ah waru koo paase. Mm-hmm. Hmm? mais ko dem ba trente minutes. di dem ah da gis koo xam ne daan na kii garabam mooy c'est extraordinaire ah na nga fekk yow yaa ngi yàq sa bopp te yëgoo ko mm-hmm. dafa loo gis. li dañuy sonn tamit kulli shay'in indahu bi miqdaar parce que la bi loolu da koy indi. Mm-hmm. booy sëy da ngay dem bay gaañoo te doo ko yëg. di gaañ ndaw si bu yàggee yenn yàgg yi dégg nga kon maanaam. loo gis amul ëppal bu ci kenn ëppal waaye itam néewal gi tamit noonu la mel. Mhm. ñi dem nekk Europe wala ñu nekk feneen toog ñaari at na ah, toog ñetti at doo sëy. Mhm. doo wax sax lu ci jëm mais boo ñëwee da ngay fay. Mhm. Hmm? boo ñëwee da jafe-jafe. voilà da ngay maanaam bu kulli shay'in indahu bi miqdaar. lépp loo gis rek yàlla daf ko da koo équilibré. voilà yaa yaa ngi woon ci hmm. yi nga xamante ni nit kee koy hmm, waaw léegi ma jàll ci yi nga xam ne yu naturel la. cause yu naturel. am na cause yoo xam ne dafa naturel mooy lan. xoolal yàlla borom bi subhaana wa taala dane wallaahu xalaqu min dofin su ma jàll min baadi dofin quwa su ma jàll min baadi quwatin dofa wa shayba am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla boo demee ba soixante ans ay soixante dix ans day wàññeeku tamit. doy na loolu yàlla ko dogalee. yé voilà bu gars yi dañuy. di wut lu ne nga wut ko. même na fi ñoo xam ne dem troisième âge waaye. di lu ne ñu wut ko di rek di ko naan mais baaxul. dafa lay leer ni lii mënatoo nekk xale bu ndaw nag aussi su ndaw nag euh, <laughs> professeur loolu yenn saa yi li koy li mooy da ngay gis koo xam ne day dugg ci âge ba pare waaw am soxna su ndaw xale bu ndaw waaw xam nga loolu euh, peut-être soit personnel la am na ñu ko dul def mhm. comprendre nga mais daal li ma la mën a xamal mooy processus de vieillissement kenn mënu koo il est irréversible kenn mënu ko bloquer mbiru yàlla la xam nga tey ji mënoo dem ba toll soixante-dix ans ba nga yemoo kii am vingt-quatre ans wala vingt-cinq mhm. lu ne nga naan ko bu yàggee sa naq bi mooy neewi mhm. baaxul baa nga rey sa bopp baa nga rey léegi nag am na am na loolu cause yu naturel la mhm. moo tax sun suñ borom subhaanahu wa am na ci beneen aaya bu muy wax ne am na ñoo xam ni sax dañoo juddoowul góor yàlla moo ne lillaahi mulku samawati wal ardi maa yor nguuru asamaan ak suuf mu ne lu koy wane mu ni juróom yi mu ni yaxluq maa saa maay bind lu ma neex mu ni yahabu liman yasaaw inaasa maay may ku ma neex jigéen mhm. def la jigéen wa yahu wa yahabu liman yashaa'u zukuur mu may ku ko neex góor hmm? mu ne aw yu zaw aw yu zawijuhum zukuraan wa inaasa bu ko neexee tamit mu boole ay góor góor ak ay jigéen may la ay seex hmm? ñaari góor ñaari jigéen wala góor ak jigéen wala jigéen ak góor comprendre nga waaw su ko defee nag yàlla ni wa yaj'alu liman yashaa'u aqiima nee na may def ku ma neex mu mu ñàkk a bu dee jigéen du mën a am doom bu dee góor mu paan loolu kenn mënu ci dara ñi nga xam ni voilà peut-être c'est congénital nit ki da ko judduwaale. Mm-hmm. dégg nga am na beneen bu naturel boo xamante ne moom la ñuy wax aphanesis aphanesis quoi. Mm-hmm. aphanesis mooy koo xam ne désir sexuel bi dafa di dafa dem. maanaam maanaam du yëg amul yëg yëg waaw temporaire temporaire nga xam ni amul yëg yi ci jigéen jigéen bu ko jege woon nit comme góor. Mm-hmm. mais ça nous vient parfois temporaire quoi. day ñëw day ñëwal nit ki nit ki du fu mu toll lay. lay yenn saa ngis koo xam ni momentanément loolu day dem. Mhm. ñaari fan wala juróomi fan wala sa semaine boo xam ne du soxla woo soxnaam dégg nga. Mhm. voilà loolu am na tamit beneen cause bu ñuy wax euh, la fatigue. sonn sonn mën nga fi jógee sa sa journée compliquée aussi xam nga nga nekk journée boo xam ne dafa danse ci yow nga guddee wàcc sonn. Mhm. waaw boobu doo fonctionner. parce que da ngay sonn lépp ci bopp bi la rek. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà gis nga ko kon nag euh, sëñ euh, Moustapha. Mm-hmm. am na lu ma tuddee SBAD mooy lan mooy effet secondaire basculant en dysfonctionnement. maanaam mooy loo xam ne da nga doon traité wu dara ba leneen fekk la ca. am na garab yu bari yoo xam ne dañ koy jël di faj li mu jural la néew kattan benn yoon. yoo xam ne ay garab nga koy jëlee. ci bàyyi xel ay pilules yooyu naan. Mhm. ay dysfonction ba ci reen yi gars yi di naan. na ko gars yi maytu bu baax reen boo romb naan ko xob bu ñu la ñuy baax na bu teyee nga dégg émission bi ñu ni lay baax na boole ko moo tax man automédication rarement. Mhm. Hmm? laay toog ci télé nit rarement laay toog naan nit lii moo baax lii naan la ñëwal def consultation li ñuy waxtaanee ni bëri na ñoo xamante ne boole ko ñu la boo boolee reenum sàngam reenum sàngam reenum sàngam te xoolal feebar yi rek xoolal feebar yi ni mu bare feebar yi koy waral ni mu bare nit ñi la néew kàttan rek nga ne ko boole reen sàngam ak sàngam na naan te nag li ci doy waar mooy automédication bi. Mm-hmm. da ngay dégg sëñ diw wax na nangam rek nee na lii baax na nga jënd xooj naan bu subaa nga gis beneen beneen beneen vidéo kii wax ne lii baax na lee baax na nga dem nga dem boole loolu naan. Mm-hmm. loolu dégg ni baax na nga boole naan <laughs> nañ moytu loolu loolu baaxul yaa ngi dégg pilu yi ñuy naan tamit. am na lu ñuy wax neuroleptique mooy feebar yenn feebar yi ay gar comprimé yu ñu lay jox yoo xam ne daf day tax dootoo nekk góor. voilà mhm. kon nag loolu mooy euh, cause yu. cause yu cause yu naturel yi waaw mooy mooy indi néew kàttan. waaw je pense que bi am na solo mhm. parce que mhm. ñëw nga ci li nga xamante ne mooy naturel yi ak yi nga xam ne ñee koy sàkkul seen bopp ak yi nga xamante ne dafay tukkee ci ay jàngorook yu ni mel mi ay développement yu am solo maintenant léegi dafay baax nag boo ñëwee ci cause yi ba noppi nga ñëw ci lan naka lañ koy saafara waa ni koy saafara amul amul amul peut-être ci yenn aspects yi amul lu ci gën sport. Hmm, di tàggat yaram waaw waaw surtout nag la natation. fii fii may may may saluer au passage sama benn xarit maître nageur la muy Aline Dia. waaw moom vraiment ñoom xam nañ bu baax a baax li nekk dañ ci faj ñu bari. ci wàllu woow ñi nga xam ne mënuñoo érec am érection dañ leen di digal léeg ñu dem ci natation bi. nañu ànd ak maître nageur yi dem ci natation bi. di féey di féey li nga ciy jëlee kenn xamul lu mu toll. Hmm, kon féey na. dafa jéeme sport mooy première garab gi. xam nga tàggat yaram kon tàggat yaram bi waaw di tàggat yaram gisoo li ma la wax sànq ne la yenn yi ay dépôt de graisse la moo leen téye. Hmm. mënuñoo doon góor mais loolu buy seey ngay dellu fa nga newoon. Hmm. waaw waaw yaa ngi dégg beneen bi ci des mooy na nit ñi consulté wu. comme li ma la wax sànq. di seeti di seeti di seeti ñi am xam-xam ci. wàll wi toog ak moom ni ko man lii laay gis lii ak lii mu laaj la ci sa néegu sëy nga ni ko nangam ak nangam. Hmm. mais mais ñëw ni néew kàttan rek lay baax na nga daal di jël baaxul. Hmm? beneen bi ci des mooy fortifiant yi tamit baax na xam nga sànq da ngay wax ni ma aphrodisiaque man aphrodisiaque c'est-à-dire ay molécules la yu ñu boole. mais fortifiant yu naturel la ñun dañ koy liggéey. Hmm. loolu la ñuy tuddee Senisex. mais mais amul ay effet secondaire amul lu muy gaañ ci nit. yépp ay ñam la xam nga ñam doon ma amul effet secondaire. loo xam ne ay ñam la. maanaam nuñ koy nuñ koy waxee ay ay ay. la ay mm-hmm. ñam yoo xam ne dañ ko boole. Mm-hmm. technique peut-être technique laboratoire bi ñu koy liggéeyee. Mm-hmm. moom la nit ki dul am mais yëpp da koy jëfandikoo daanaka. benn bu ne bu ñu la tasaloon nga ne lii mës naa ko lekk mais ñu boole lépp. pour pour mu may ni ki doole. très bien ay fortifiant loolu dafa baax mooy ki nga xamante ne yàlla may na ko mu mën a taxawal tuuti. waaw mu mën a taxawal yeneen yi nag am na ay solution yu ñuy faj yooyu xam nga loolu duñ ko fi détaillé. xam waaw am nga gars yi rek yaa ma gën a xam. Mm-hmm. waaw loo wax rek ñu ñu ñu kii ko bu ko defee euh, sunu sunu sunu duggee ci loolu ñu xool hygiène ti yi. lekkin wi. waaw lekkin wi. waaw nu neex la ñuy lekkee. lekkin wi gis koo xam ne professeur. waxtu wi lu koy lekk dana naan guddi gi damay jënd sama dibi bu baax teg sa butéelu boisson naan ko tëdd. voilà gis nga loolu. Ah, xam nga loolu tamit. dafa dafa yéeme dafa yéeme. am na ku ma ne loolu empoisonné sa bopp mënu koo weesu. loolu lekk dibu bu niin batt nga pare teg si boisson gazeuse. waaw xam nga ñaari jéego de ñaari jéego dem tëddi nelaw. te nag li nu wax mooy boo xoolee kooku mu ngi wàññi ci li muy dund li mu war a dund. waaw ah, gis nga loolu. ndax dañ ni dañoo wax ni yàlla borom bi subhaanahu wa mooy dundal mooy rey. Mhm. mais processus de vieillissement mën nga koo ralentir. Mhm. yenn saa yi gis koo xamante ne day am 65 ans. mais bu la dóoree nga daanu mel hmm? hmm. na ko am 40 hmm. nga gis koo xam ne vingt ans la am mënul sax yëkkati benn. benn kii boo na am na 40 ans. kooku day. da am na yoo xam ne processus yoo xam ne yàlla da ko bàyyeeg yow. voilà gis nga ko kon nag maanaam yooyu yëpp am na ñoo xam ne dañ koy jéem a faj ci njabar. loolu nag laa bëgg gaa yi maytu ko. njabar njabar na ko gaa yi maytu. dañ koy dañ koy jéem a faj ci njabar. maanaam nga gis ne lii doxul. waaw ngay dem ci masi. ngay dem ci masi ñu recours à la masi ñu lay jox ay reen ngay naan ak. non di eh, di la sanguloo ak di la diwuloo. voilà wala ñu lay sulloo di la def loo yeneen. di la takkaloo voilà yooyu fajul di fajul impuissance de faju ko. waaw faju ko ah, ah, am na xam boo ko takkee euh, imam. gaa <laughs> yi dañ ci professeur am na boo ko takkee mu <laughs> ah, ah Sénégal bi gaa yi gaa yi dañu garaaw de. lii ma yor ni ab kaamil la mm-hmm. <laughs> lii. lii amu ci looy bind takk ko. Mhm. mën a doon góor am mënul ne. Mhm. waaw li ma la wax nii yooyu gars yi dañ ciy dóor rek mais ñun xam na ni mu fa demee. Mhm. voilà kon nag ala kulli li may li may tëjee émission bi damaa bëgg. Euh, ñu dugg tuuti ci wàll boo domaine boo xam ne xëj na dinañ ci soxla borom xam-xam yi. ab question lay doon. waaw ndax ñun suñu lépp charia la man wax dëgg yàlla xëj na ñi jàng droit ak li ñu bind ci constitution beeg yooyu dinaa leen laaj mais nag man sama delluwaay mooy charia. xam ndax tey jii su fekkente ni nit ki dafa am soxna dem ba mu yàgg loolu gaar ko ndax on ne sait affaire bi dab ko maanaam ak néew kàttan ba mënatul. Mm-hmm. Hmm? mu nekk di faju hmm? mu nekk di faju ndax boo xoolee lii boo duggee ci wàllu histoire boo demee ci euh, France lu réew mu mel ni France en mille quatre cent vers les années mille quatre cent. Mm-hmm. mille quatre cent vingt six je pense la njëkk a tas ab sëy te loolu waral ko annuler ab mariage. parce que tamit. ci ci parce que dañoo gis ku góor gi góor gi amatul kàttan. amatul kàttan hmm. te nag yenn góor yi ñooy def espérer dem xam na ni nekkoo fa xam na ni pare woo ba pare nga dem di tàkk. mais professeur def loolu loolu tamit yabaate. bare na ci dëkk bi. Hmm? wallaay gis naa teg naa ci sama bët. Hmm? moo tax boobu dafa ànd ak interdiction de remarier nga dem faju ji ba wér doog a amaat autorisation de mariage loolu loolu fii loolu am na de. xam naa du yomb ñu tool fa parce que lu ay saytu lay doon. ay saytu lay doon léegi nag léegi nag su ko defee man li may laaj question bi li may laaj ci sharia hmm? boroom xam-xam yi tey jii imaam bi buy mayee ku ne xam na ni alwat u mooy lu mooy li njëkk nit ki est-ce que góor la d'abord. Hmm. Hmm? est que góor la d'abord léegi nag ki nga xam ne tey jii leer na ko ni du góor su su su takkee kii bàyyi bu subaa mu dem takk keneen est-ce que laajul tamit imaam yi léeg-léeg ñuy contrôler di laaj bu ñu bu ñu bu ñuy takk bu ñu lay may soxna laata ñu la may ñu laaj la. ñu contrôler loolu ñoom daf koy nëbb. waa ki nga ne la maa ngi a. dañuy contrôler. <laughs> Ah. ko da euh, dab par exemple dafa war a toog xaar ko ba keroog muy wér ndax am na yoo xam ne mënula wér yàlla rek a xam. Mm-hmm. waa ak tamit buy wér tamit ci diire boobu est-ce que day toog xaar ko wala. Mm-hmm. mais mais dafa bëri loo léegi léegi luñ koy luñ koy jàmbat ci ñi nga xam ne mm-hmm. ay mag parce que ñu bari nag mag ñi nañ kaa gisee. selon yow si gis-gis ci gëstukat lan moo ko sooke. waaw mën na nekk yi fi lim yu bëri li ma fi lim ni yëpp man gëm naa ni infidélité bi da cee rax nag lu baree bare. parce que xale yi li ñuy seetaan contrôlé tuñ ko na waajur yi di di di di di contrôlé portable yi. waaw ah, di xool xale yi li ñuy seetaan ak li ñuy dund hum mais loolu. téléphone daf ci am impact. téléphone daf ci am impact bu baax a baax a baax. ak li ñuy gis di ko di ko di di waxtu wu nekk jamono bu nekk. Hmm. bu njëkk mag ñi da nga daan wodd bët. Hmm. dara du feeñ ci yow te bu mbooloo toogee foofu day doo ñemee romb. Hmm. xale yi fii da ngay gis koo xam ne ab kiloot lay sol. waaw ànd ak góor ñi noonu ah. te góor ñi sax du ñu yëg ni jigéen lañ àndal mais loolu nga yaakaar ne du feebar. bu njëkk góor bu ko jigéen bu la bu la dandee ni rek non non war nga am loo yëg. ci yoon. mais chaque jour ñooy yendu. ni ko yombalee ni ko yombalee li ngay gis ci mbedd mi. li nga war a gis sa biir néeg boo génnee ci mbedd mi lay gis ko ku def yaramu neen léegi. Mm-hmm. Ah. wala gis ko ci télé gis ko ci télé wala ci kii wala su nga taal sa portable di ko seetaan. Mm-hmm. mais loolu nga yaakaar ni du la impacte mais loolu góor ñi dinañ am jafe-jafe ah professeur. dinañ am jafe ndax jamono bi ñu jëm yi nii bu yéemee yéeme la kon na gaa yi gën a contrôlé. Mm-hmm. solution bi mooy alxuraan kese ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mën a tënkaat nit ñi. delloo leen ci ni nu war a dundee. Mhm. waaw kon nag alaa kulli xaal mhm. euh, loolu la ñu indi woon ci gëstu yi tey. Mhm. waaw incha allah ma koy ma koy a baax. ak mm-hmm. question bu nga daaneele ak yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, mu doon euh, professeur Youssoufa je pense que yéen ñu doon suivre am ngeen mbégte bu baax ci waxtaan yi nga xam indi na ko. Mm-hmm. ak yi nga xamante ne dañ koy faral di jukki mu jëm ci wàllum néew kattan. ak lépp lu ci sosoo. mi ngi ma ko doon wax sax bi ñu waaj a door émission bi doon na loo xamante luñ mën a wax ci benn émission la. parce que benn bu mu si jukki ci benn jàngoro wala benn bu mu si jukki ci loo xamante ne mooy cause peut-être naturelle wala loo xam ne ki moo ko provoqué. mën na def sujet émission. mën nañ ko waxtaanee émission ba mu jeex Mm-hmm. waaye comme wàllum temps moo tënk wàllum télé ak mm-hmm. mbirum rajo ki ni mel mm-hmm. dañ koy jéem a xaj-xajaar rek euh, je pense que ñi nga xamante ni waxtaan bi amal na leen solo ba ñu bëgg jokkoo ak euh, professeur Youssoufa Ndiaye mm. euh, mën ñu jokkoo ak moom amaana bu ñëwee si laboratoire am ba mm. ak mm. Euh, yu mu fay def ak étudier ak njàng yépp mën na am yàlla doxale seen i diggante ba tawat bi ñu am mu am ci saafara comme ni mu koy defee ak patient yi nga xamante ne moom lay moom lay dalal ci laboratoire am ba professeur numéro bi boo ko bëggoon boo ko doon baaxee te ñuy suivre mm-hmm. numéro bi waaw numéro bi ci kàttanu borom bi comme ni ñu ko waxee rek mm-hmm. numéro commercial bi mooy mm-hmm. cent 77 312 19 19 77 312 19 19 wala 76 na whatsapp boobu am na whatsapp waaw. waaw boobu ku la ci woo ci bitim réew boo ci woo rek bitim réew biir réew mi di nga jot direct bi bureau d' assistance bi bu ko defee ñu jël la. incha allah am na tamit 76 201 04 44. ok dinañ dinañ waxtaanee ak euh, yow ci yeneen jàngoro tamit ah, yeneen jàngoro. Mm-hmm, mm-hmm. yoo xamante ne soxal na euh, mm-hmm. askan wi parce que Sunugal 24 li soxal askan wi rek moo ñu fi bàyyi. Euh, bii paa néew kàttan lañ indi woon. amaana dinañ xool ajjuma bii di boo xamante ne dina soxal actualité bi dina soxal ñi nga xam ne ñoo ñu déglu. Mm-hmm. Euh, di nuyu si seen bi nga xam ne moom ngay àndal. à ah, chaque fois moom moom xam naa foo tardé rek parce que moom du jóg di dëgg ci mburu ak ceeb mooy àddinaam <laughs> professeur maa ngi lay remercier lan ngay li may tëjee moom mooy wax dëgg yàlla delluwaat rek ci gëstu. Mm-hmm. ak xam ni réew yi nga xam ne tey jii dañoo nekk ca kanam yépp tey jii euh, li leen yóbbu ca kanam du ay malaaka yu wàcc di tabax dëkk ba mm-hmm. wala sax ay yanantu yu wàcc seen dëkk yooyu li leen li leen li leen tax a jëm sa kanam mooy utiliser li yàlla wax rek waaw maanaam euh, xel maanaam il faut ngay xalaat mm-hmm. doomu aadama yàlla da ko jox libre arbitre mm-hmm. jël xel mi xaaj ko juróom-ñaari parti hmm? waaw li ñuy wax arcancéphale polyencéphale néencéphale encéphale télencéphale myencéphale diencéphale yooyu yëpp ay façon xel la ci doomu aadama ngir rek ngir la équipé nga ne ci doomu aadama hmm. nga nekk fii ci àdduna ngir mën a wéyal kon nan gën a gëstu gëstu daal ci la ñuy woote institut bi nag mu nga fële ci njaxiraat hmm. ñun daal li nu gëm mooy alxuraan mën na am dimension boo xam ni ñëpp mën nañ ko partagé ki gëm ak ki gëmul hmm. yëpp téere la boo xam ne ñëpp a ci yem kon gëstu rek ci la ñu nekk ñun incha allahu tamit créé suñu académie académie des sciences islamiques et de la révélation lépp lu ñu gëstu rek mu jóge ci téere bi doon lu ñu mën jariñoo daañu ko baaxee askan wi jërëjëf professeur Youssouf Ndiaye maa ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun di leen jox rendez-vous ajjuma ñëw seen benn émission gëstu ak beneen jàngoro bu ñuy waxtaanee naka lañ koy wottoo ak naka la ñuy def ba yàlla musul ñu si merci beaucoup Mansour Dramé moom moo nekkoon ci régie ak technique ba ba ajjuma incha